mu doon jéem a weddi nag ne ibnul qayyim defut ak tasawuf nen tax mu indi audio yu bari loolu nag ngir bañ mu nax ku xamut moo tax ñu ne nañu leeral waaye ñoom sax daanaka jëruñu tontu comme ni ma ko mel ne mbokk waxee léegi te itam la mu wax boo ko xalaatee ndax waxoon nañu ne euh, daanaka ñooñu moom sa nu far ne ci li nu ëppal solo waaye jëruñoo tontu ndax dañoo amul jot euh, daanaka amuñu solo. waaw waaye loolu rek moo tax ñu ne nañ leeral lii jéem a xool ba xam eh, ndax noo ne mu wax ibnul qayyim ni la demee walla naa fooxe woon mën na la demee lu ñuy wax lu ne itam dañ koy teg ci preuve teg ko ci mbindum ibnul qayyim ci boppam itam kon ñu ngi leen nuyu di wax asalaamaaleykum fas yéene ñëw ci raddu bi léegi kon sun raddu bii dañ koy def ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy diggante ibnul qayyim ak tasawuf xaajum ñaareel bi nag lañu ca fas yéene waxtaane mooy wax ya nga xam ne moom la jaawara doon wax ngir jéem a wane ne ibnul qayyim defut nen ak tasawuf bu dee xaaj bu njëkk bi nga xam ne nag mooy diggante ibnul qayyim ak tasawuf foofu danañ wax ne ibnul ibnul ibnul qayyim ku reconnaître tasawuf la même xasida googu nga xam ne sax ngóor si doon na ko jàng di wane ne amna na ci gëstukat yi ño xane dañu wax ne daa ko ñi tasawuf bi mu dajee ibnu taymiya génn ci même xasida goge bo ci deme da nga xamne reconnaître na tasawuf ndax neena na wa jamiicu asxaabi rasuli cisaabatu lislaami ahlu lcilmi wal imaani wa taabicuuna lahum bi ixsaanin ala tabaqaatihim fi saairi al أهل الحديث جميعهم وأئمة القدوى وأهل الحقائق العرفان العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان كن تفهم خير صوفي بمدق وصوفي muy سنة waaye suufiya bu dëppoog sunna moom ngóor su indiwoon na ci dog boo xam ne da doon jéem a wane ne gëstukat yi ci lañ sukkandiku te bayit yooyee ibnu ibnul xayim tudd fa fenn ci tasawuf la la mu doon wax sax avant bayit yooyee lam doon wax ne génn na ci loolu jotewul ak tasawuf dara ci mbirum sifaat yi la woon ak yooyu waaye ginnaaw mu jàpp mu bëgg a wax ne euh, léegi kon euh, looloo tax gëstukat yi ne euh, lii tax mu génn ci tasawuf bi mu dajeeg ibnu taymiya te loolu sax wax wax ju yàqu la ndax ibnu taymiya ci moom da da xut tasawuf moom bu fekkoon Ibnu Taymiya daa dàq tasawuf boobaa ñu mën ne kon génne ni ko jox Ibnu Taymiya du génne ci tasawuf kenn ndax moom dàq ko euh, loolu waxi caaxaan la kon moom même ba yit waa ji indi sax moom bokk na ci li nga xam ne ku ca dellu da nga xam ne moom Ibnul Qayyim mii daa saxal tasawuf ñaareel bi itam boo demee ci euh, Madaariju Saalikiin ci xaajum ñaareel bi page 302 da ne tasawuf da daa wax ne zaawiyatun min zawaaya suluuk al-haqiiqi وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى كن لول وخ كن زاوية لكي ييغا خامني تخ نيت كي مانو سوبو سوبو غور سلال بكن سلال كو با مناغ جي سون كي كوي واخ ني دا ويدي تصوف ياو مبيندي دا يو ياو leneen liñ mën a wax itam ci ibnu xayim euh, xayim euh, ci wàllu tasawuf moom ci boppam da doon tagg suufi yi nit mën naa wax ne am na suufi yi yoo xam ne doon na leen raddu loolu dëgg le te loolu moom du ibnu xayim dong même suufi yi sax am na ci ñu raddu ay suufi yi ci yoo xam ne dañoo jàpp ne dañoo juum ndax il faut ñu teqale diggante reconnaître tasawuf ak am ak ak am ñoo xamne dañuy tuddo tasawuf te jappone ci lañ ne ñaari mbir yooyu duñ benn ibnul qayyim nak da bok ñi nga xamne dañu reconnaître tasawuf waye am na ñuy tuddo tasawuf ñoo xamne ne ñoom jàppul ne ci tasawuf la ne tasawuf gu wér motax du wax tasawuf da danaan malahiratu sufiyya wala mu wax leneen ci texte yi nga xamne mo lu ngor ci indi buñ ci àggee dana dana leer bo demé tamit ci même madaara salikin saalikin da ngay gis mun فكلام أئمة الطريق وخي جاي خمنا نوي كلفة الطريق بي نوني لابن سهل ابن عبد الله التستوري أبو طالب المكي جنيد ابن محمد غني مم بقنا سن جاوري خس رحمن النسابوري يحيى معاذ الرازي أك أبو سليمان الداراني أك نينين من إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة دي. والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس فني ور جيم رك موي دان سين واخ بو خولي داغا غيس ني نيوم لوي ماي حكمه اك خام يال اك خولي لا اك بكني سيل نينا فوفا وتصحيح المعامله نينا فوفا لا سين واخ جيم تا لولي تام موم لو سوفي واخ سو تاسو موي سو سيل البكن تي اك تاي تاي فخه بام يور جي كوي رامي كون ابن القيم كون دا contre tasawuf wala da koo weddi la ngay wax moom dara amu ci waxuma la sax di leen contre waaye ñenn ci sëriñi tasawuf bi sax mënees naa wax ne ay sëriñ la leen jàppe boo demee ci madaari ju saalikin ne wallaahu ساعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل نانا يالنا يالا في سيخ آه، الإسلام كو كم بغا موي هروي يالا سوفي مغي نانا يالا كو يالا في لم دف يكري درجة في كو يتم نجي اك فايم بوالي كو موري دم بيغا خمني موم موم تم موري موم كيمي تودي موري دوب سرين بو موم ابن بوبم لا سي جوبلو dem na sax ba ne ni nga xam ne noonu la hudd hudd hudd meloon ci Suleymaan nee na noonu la mel ci réew yi mi nga xam ne kilifa tasawuf la kon eh, ibnu ibnul Qayyim kuy wax ne daa contre mutasawifoon yi wala nga naa daa contre yow la ngay wax ci sa kaw bànneex nga ko teg wala ak umpale lu ci ne nag mën naa ne waaw maa ngi lu son boobu dafa desee leer kon dama doon wax ne boo demee ci ijtimaaul juyuush islamiyya gars yi dañoo defee ne madaariju saalikiin la mbir mi waaye ibnu taymiya moom ibnu qayyim moom du foofu rek lay wax ci tasawuf boo demee ci téeram bi ñuy wax ijtimaaul juyuush islamiyya dafa wax ne am na benn faslu bu mu indi foofu boo xam ne suufi yi nga xam ne nee na ahlul itibaa lañ loolu foofu la berseeni wax maanaam suufi yi nga xam ne dañoo topp alxuraan ak sunna nga gis ne kon dafa am suufi yu mu amal problème yoo xam ne jàpp na ne nekkuñu ci tasawuf ju wér ak ñoo xam ne jàpp nañ ne ci tasawuf dëgg lañ ne ndax suuf yi ñoo xam ne ahlul itibaa nee nañ suufi yi lañ yuy topp alxuraan yoo xam ne ci suuf yi yi nga xam ne dañuy topp lañ war a topp lañ lim na ci Malik ibn dinar lim ci Fudayl ibn Iyaad lim ci zone zonnoonil Masri nga xam ne moom la jaawari faral di xas fan yi zonnoon حارس بن المحاسبي أبو, عب... أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي أبو جعفر الهمداني أك معمر بن أحمد الأسفهاني عبد القادر الجيلاني ينيب في صوفي ولين بولين خنا نتوقع القرآن السنة لين أك أبو عبد الله ابن خفيف الشيرازي أك إسماعيل ابن عبد الله الأنصاري كوكي بوك تنجاري خاص أك برم حلية مي أبو نعيم ñu bari fofu da lay da lay di tag tag na fa itam ñeneen ñoo xam lu sahal boori ma ci boori ma euh, ci madar ji salikin sahal ibn abdullah tasturi ibn muhammad mom itam bok ci ñi jaawre xass aw uthman ibn naysabur yi wa muaz razi ak ñeneen ñoñu neena euh bu de ñi mu wax ci مدار يسالك إننا حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة يعني سين وفهم جموي لوي تخا أم حكمة أك خميال أك خليولاب أك بكن يسال أك ويرل أك جفلين ده kon neena wax lu tuti li ñoo wax barke bari ci ne mo tax mu ne wala hada kalamuhum qalilun fihi albaraka kon kuy wax ni ki daa contre tasawuf mba mu ay contre mba mu contre euh soufi yow say wax ci banex do nga ko tek euh ba legi tam yenn xéeti bir yi nga xam ne waxaab yi ñoom daanaka buñ koy wax ci dañuy dañ koy wax waxin woo xam ne ñi tuddé ay soufi ñom ñoom ñoñu do nga koy def lu ci bari da koy gis ci mbindum ibnul qayyim bokk na ci sos ak sikkar goo xam ne yaa ko sos waaye mënoo génne fu mu nekk ci alquran wala sunna jëmmi baat ya te loolu ñu bari ci seen sëriñ dañ koy wedd boo demee ci ahmad loo ci euh, taqdisul day wax ne loolu sañeesu ko wut ay baat yoo xam ne yaa ko wut di ko sikkare loolu ibnul qayyim saxal na ko ci ma madaariju saalikin te nee na itam ibnu taymiya daana ko def dafa wax ne bokk na ci Euh, yi nga xam ne jarrabuha la wax dañ koo xay dañ koo natt nga xam ne moom saxal sax rafetlu na sikkar goo xam ne baat ci téere xaddis yi néew ci téere euh, néew ci ba léegi itam rafetlu na euh, wutal ak sikkar ab lim ni ki nga ne ñeen fukki yoon dinaa ko def diggante nangam ak nangam ba léegi rafetlu na tànn a waxtu woo xam ne nee na waxtu ngëneel la te loolu wax na ko ci madaari ju saalikiina ne maana diggante naa naafile fajar nga koy def ak diggante fi ngay jullee jullik faratay suba waaye waxaat na ko feneen tamit waxtu woowu boo demee ci yeneen téere mi da gis ne waxaat na ko feneen kon tànn waxtu ngëneel woo xam ne mënoo génne lu tax mu gën ci alxuraan wala sunna yooyu yëpp da koy gis ci mbindum ibnul xayim ibnul xayim saxal na ne ku faatu ba noppi bañ rob ko mën nay wax ak ñoo xam ne dañuy dund boo demee ci té té bi ñuy wax ar-ruux saxal na ko foofa saxal na itam mën naa faatu ba noppi ñaari armée jàkkaarloo fii ci àdduna yow mi faatu yow nga xeetali benn benn armée nga xam ne yow mën ngaa ñëw euh, songu benn armée gañe gañe leen yow te fekk yow faatu nga ba noppi boo demee ci kitaabu ruux euh, saxal na loolu même sax mi ngi nettali ci ibnu taymiya naa am na bis mu wax loo xam ne nee na ci lawhul mahfuz la ne booleeg saxal yoo xam ne nee na ibnu taymiya wax na ko ay mbir yu baatin yoo xam ne yenn yi gis na ko ya ci des mi ngi koy xaar nga xam ne kon moom saxal na ne kon nit mën naa wax lu ñëwagul ah, kon buñ doon topp masal yi nga xam ne ibnul qayyim wax na ko defe naa ne daañ fi yàgg ñoom dafa mel ni dañoo xamul seen sëriñ si bu dee wax gi nga xam nag ñenn ci ñoom dañuy wax ne madaariju saalikin ba mu koy taarif boobu dajewut ak ibnu taymiya loolu moom wax la waxi tappale yoo xam ne aajewut sax gëstu ngir xam ne wérut ndax madaariju saalikin moom dèjà ma ngi koy nettali loo xam ne nee na ibnu taymiya ci newoon nan nan nan las mën a waxee ne ba mu koy taarif boobu dajewutoon ak ibnu taymiya te moom mi ngi nettali naa cheikhul islam ibnu taymiya daana def nangam ci ci même téere bi ñaareel ba itam même téere yi nga xam ne ci la jaawaray dellu di jéem a weddi ne euh, ibnul qayyim ibnu qayyim nekkul woon ci tasawuf wala amutoon ak ñu defutoon ak ñoom neen téere yi mi dellu ci boppam bari na ca yoo xam ne euh, ibnul qayyim ba mu koy taalif booba taalifagul madaariju saalikiina ci ñeenti téere laa dégg jaawara dellu muy muy ilaamul muwaqqi'iin ak alwaabilu sayib ak igaasatul lahfaan ak nga gis ne téere yee jaawara dellu benn téere képp képp képp laa ci gisul ibnu ibnul xayim tudd ci madaari ju saalikin waaye ci des yëpp ba mu koy taalif boobu tu taalifagul madaari ju saalikin ma joxe ci ay preuve bu dee igaafatul lahfaan nee na waqad ashbacna alkalaama fi hada fi kitaabina al musamma igaafatul lahfaan nga xamne bir madarij salikin tud na ca booba téere nga xamne kon talif nako ko gut madarij salikin saalikin neena itam zakarna fi zikri nahwa miati faidatin fi kitabina al-wabil as-sayyid nga xamne al-wabil as-sayyid tamit bokku na ci téere yi nga xamne talif nako na gut madarij salikin nak tud nako ci madarij salikin ci as-sawa'iq al mursala jaara delu na ci tere bobu Ibnu Taymiya taalif na ko ba noppi te taalifagul Madaarij Saalikiin ndax boo demee ci Madaarij Saalikiin da nga gis mu di ko tudd loolu wane na ne téere nga xam ne ñoom ca lay dellu sax war nañ koo xoolaat nga xam ne dañuy jéem am na ci ñoo xam ne dañuy jéem a wane ne eh, booba daa nekkan ci tasawuf waaye da caa génnaat di dellu ci yoo xam ne jëmmi téere yi ci sax Ibnu Taymiya tudd na ko ci eh, Ibnul tudd na ko ci eh, Madaarij Saalikiin dafa mel daal koo xam ne day lëntal jamono yu ne day far day faral di yaay boppam noonu man non la gis mbir yi ndax ma dal aswaaqul musala wa demee ci madaarij saalikin nee na bal abadu minhu li wujuhin kaseera dhakartuha fi kitab kitaabi sawaaqil mursala ala al-jahmiyyah wal muattila bal ta'wil ayat as-sifat bima yukhrijuha an haqa'iqiha maa li min koy wax ci madaarij salikin fek na bobu kon taalikoon na tere bobu ñuy delu ba noppi téere yu bari da ngay gis ne moom la njëkk taalif même sax bu dee kii qurratu uyunil muhibbin tudd na ko ci madaarij saalikin ba tey ak téereem yu bari bari da ngay gis ne tudd na ko ci madaarij saalikin bu dee li muy tegtaloo itam ne xaddasani qalbi an rabbi mu ne ibnul qayim da koy bañ loolu du tegtal loolu du du ci yeneen téere yi la ko wax dong waxoon na ko ci madaarij saalikin tamit ba doo ci madaarij saalikin da ngay gis mu ne waa maamaa yaquluhu kathirun min ashaabil xayaalaati wal jahaalaati حدثني قلبي عن ربي فصحيح إن, إن أن قلبه حدثه ولكن عمن عن شيطاني لو كن مم دكوا يابي كونتر تيو نسخل نني يا الله من ناخم الدوما منين بير لو لو مسخل نك مم سخل كوي نت ليشر يم إبن تيمي وايد كوا سخل تبوهم أنا يا الله جم أنا خم الكوا خان دوبي ونت خاين الليل بني حدثني قلبي عن ربي نيكوا يوحي تملين تجيب لهم دنا أم بسم الله رلكم ngóor si itam wax na ne ibnu arabi ak ibnu farid daanaka xaw nañoo dëppoo ci ne moom ay yéefar lañ ma ko dafa ndànk ibnu farid moom ibnu taymiya ibnu qayyim ci wax ne da koo takk euh, ku koy wax war xool mbind mi njëkk ci ay mbindam ak ma ca mujj ndax am na ji téeram yi foo xam ne dana ibnul farid rahimahullah tax na ab yéefar moom kenn du ko ñaanal yërmande ginnaaw bu mu faatoo yërmande ndax yàlla mu ko mu yërëm du la yóbbu sawar Euh, wax gi mu wax tamit ne Ibnul Qayyim da doon xas maanaam da doon raxas téereb rëw yi d'accord xëy na doon na jéema a jubbanti yenn yi waaye xërëw yi moom nga xam ne daa gëm waxdatul wujud fan la ko Ibnul Qayyim waxe Ibnul Qayyim boo demee ci téere bi da gis muy défendre sax day wax ne am na ñoo xam ne la ñuy wax day wax ni waxdatul wujud ak yooyu waaye lañ ci jublu du lool loolu moom mi ngi koy défendre ci ci madaariju saalikiin ak naa dañ def ndànk ci waxi waa tasawuf ndax euh, dañuy junj mën nañoo wax baat boo xam ne tam jubluñ ci jëmmi baat bi waaye la muy la muy junj lañ ci jublu euh, kon wax ne euh, xërëw yi daa bokkoon ci wax ne lu jur mu di ko jubbanti loolu day fekk Ibnul Qayyim wax la wa lool waaye Ibnul xëy moom waxut fenn xërëw yi ci ñooñu la bokk moom da koo jàpp sax nit ku baax koo xam ne <laughs> macha allah kon kay. loo ko wax da ko tuumaal rek euh, kon yii bokk na ci lëntal yi nga xam ne ngoor si defoon ko ñu ñëw nag ci xaajum ñaareel bi te moom mooy eh, texte yi nga xam ne moom la indi doon ko jéem a layale loolu mu nekk loolu mu wax ne Ibnul Qayyim di futoo nag tasawuf neen na ñu xool texte yooyu ba xam nan la demee kon bu ñëwee ci texte yi nga xam ne moom la ngóor si indi daañu fekk ne am na texte yu jot a jox ci yenteer yi texte bi ma njëkk a dégg mu tudd mooy إغاثر اللفهان اللهفان بين بين تير لي تير ابن القيم نفات ما باي خل نان تير بي بكو ابن القيم دي تالف بو تالف غول مدارج السالكين جيمي تير بي توم تود نكو سي مدارج السالكين كون لا يون صاح موي بو فكي واخي دا بوكوت لا يالون موي غاني كون دا دون كونتاكت سو بو ماك مو نيو تي كون ndax lim wax ci madaraj salikin mom mom julli wax ci khafatul lahfan waye ngor ci bimu ñewé ci khafatul lahfan texte bu indi nañ ko xol dane ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات فوقعهم في, أو في أنواع الأباطيل والترهات وفتح لهم أبواب الدعاوي الهائلات وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف الإعيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن nga gis كي kon يمي mutasawwifoon yi muy wax سكن لكو في كشف أكي أي خيالات كسه nga xam ne bu leen joxee loo xam ne dëppoowut ak alxuraan ak sunna itam te loola la ñuy topp waaye duñ topp alxuraan duñ topp sunna ndax ñoom kasfu googee ak yoon wa ñuy jaar ngir dem ci kasfu ñooñe loola ci lañ moom lañ bëgg a doyloo mu ne fa ida fa ida ankarahu alayhim warasatu rusuli qaalu lakumul ilmu zaahir wa lana al kashful baatin fekkee ñi nga xam ne ñoo doon du yonent yeeg ñoo doon du yonent yi te mooy borom xam yi ñooy la yéen kat xam-xamu ngeen am waaye noonu am nañ kashful baatin uh, walakum zahiru shariati wala naa baatinul xaqiqati yéen sharia ngi ne waaye ñun ñoo moom xaqiqa lii la ibnul qayim di critiquer koo xam ne daa bëgg sukkandiku ci xaqiqa xaqiqa kese bàyyi sharia te loolu nag boo xoolee ci bind sëriñ sax mën nga koo gis ku ci mel ku ci demoon ni masaalikul jinaan ak ñu bari sax ci tasawuf yi maanaam bañ a boole xaqiqa ak sharia da ngay gis ne dañ koy dàq kon kii daa am xeetu tasaw dafa am ñu muy weddi waaye du cee génn daa bëgg a wax tasawuf daa bokkut kon loolu moom du tegtal beneen texte bi mu dem ci i'laamul muwaqqi'in daal ne wa ayu shay'in taqa'u ahlul bidaa'i wad dalaali tasmiyatu shibahihim الظاهرة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين وال... xam nga ñëwaat ci beneen vocal balaa gën a <coughs> gën a gudd. foofu itam li fi Ibnul Qayyim wax mooy mu ne meneen maam ñi nga xam ne ci mutasawwif yi dañuy jël xayaalaat yi ak yi nga xayaalaat yi nga xam ne xayaalaat faasida la ak sataxaat yi def ko ay xaqaayiq yooyu yëpp ci cadre ñi nga xam ne dañoo jël sos loo xam ne dëppoo ak alxuraan sunna bëgg a sukkandiku ca loola. nga xam ne bu dëppoo ak alxuraan sunna yi te ca loola lañ bëgg a ci cadre boobu la Ibnul Qayyim di waxe waaye waxut koo xam ne. mutasawif boo xam ne la yow sax ba gën a rëy moom mooy alxuraan ak sunna te lépp lu dëppoo ak moom itam da nga koy sànni kooku taxut ibnul xayim di wax lii muy wax euh, boo demee ci alwaabilu sayib waa ji delluwaat na te boobu téere itam ci yi nga xam ne moo njëkk ma daal di gis saalikiin la bokk ma koy wax naa bokk na ci màndarga yi màggal ndigle ak tere nit ki bu yàlla digle wala mu tere mu bañ koo defal wutal benn illa boo xam ne ca lay teg war a topp ndigal loolee wala mu bàyyi ko li war a def rek mooy bu xamee la tax yàlla digle ko mu topp ko bu ko xamut tamit mu topp ko bu xamee illa ba ko ci kaw loola loola xëy na da ko yokk ak topp ak waaye tam bu ko xamutoon tam mu topp ko ci cadre boobu li mu xëy mu ne. nga wër si bu mel nii. di ko raddoo tasawuf ibnul qayyim te ku amum xel xam nga ne lii ibnul qayyim di wax suñ sëriñ suñu sëriñ ko njëkk digli te it ginnaawam itam ba léegi ñu ngi koy digli wala yàlla digalee nga topp eh, doonte xamoo saa illa ba wala tere it nga bàyyi doonte xamoo illa ba loolu man gisuma ci sëriñu tasawuf yi ku di kooxut loolu waaye ak ndoxam ak gàtt xelam ak ak mën a lëntalam tax na mu indi texte bii xëy na li tax mu indi ko مؤيلين من قيمنا كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف ñeen ñi nga xam ne ñooy askanoo tasawuf def gi ñuy def yu mel noonu te ibnul xayim muntasibina ila tasawuf la wax mooy ñoo xam ne dañ koy askanoo waxut ne sax ñooy suufee dëgg dëgg dëgg waaw ndax moom ci foofu moom nangu na tasawuf diw askanoo na tasawuf ak diw ci la bokk nag du benn ñaari wax yi du benn waaye lu mën a xew moom lii muy wax dëgg la te itam ñun ñëpp moom la ñuy wax أمن بنان تكسبهم إن تجلك سواعق المرسل من أن النفاة المعطلة ليس فيهم أحد من أئمة الإسلام ما نيجي أن نيجي فوق سمو خبنا أن مرور كده لورا أن إيدك أفر التصوف سجى خلنا منا خبنا معطلة يوي مم إمل خيم لانغاس بمكوي فرال دي واحد موي كي سفا دي كي عقائدي فوق لكوي فرال دي إتليزي ما دو دو تصوف خاينة تك نشينا كل واحد آه، من منس منس ناجاب نتصوف له موي في موهنا وما لا أحد تلوم تصوفات القائلين بوحدة الوجود te loolu itam ñuy wax tasawuf ñi wax wax def lu jot te jublu ci wax def lu jot ñooñu ñun ñi ñooy leen ci karaddu ndax wax def lu jot ñun nanguñ <laughs> ah, bu fekkee ci maanaa bi nga xam ne moom lay nuru bu fekkee nit ki daa jàpp ne yàlla doo nga am leneen amut nga xam ne moom maanaam mbindeef amut dara amut nga xam nit ki yàlla la kenn ku nekk yàlla bu dee maanaa boobu ñun waxuñu ah, kon foofu itam génn nga débat bi ba tey mooy li ma doon wax rek ne la Ibnul Qayyim dafa am tasawuf bu na nangu ak bu mu nga war a wax waaye waroo ne dàqoo dafa am lu ñuy tuddee tasawuf lu muy dàq waaye wari su da wax ne dàq na tasawuf kon bu dee ay gaa yoo xam ne dañoo wax rek lu wujut euh, ñooñu moom ñun waxuñu leen wax rek lu wujut ci ci maanaam mbindeef amul loolu moom nun dañ ko waxut xay na nag Ibnul Qayyim mën naa fekk koo xam ne waxut loola moom mu defee ne loolu la wax loolu mën naa ne waaye li wér ko wér mooy kilifa tasawuf yu bari tagg na leen bal sax def na leen kilifa comme ni mu ko waxee ci xaraw yi ne moom ne ne moom moom muridu xaraw yi la euh, loolu daa mat a leeral texte boobu itam mi ngi ko jëlee ci téere boo xam ne muy sawaaqul mursala ibnu Qayyim taalif na ko laata moo taalif sax madaariju saalikin ndax tudd na ko ci madaariju saalikin jëmi téere bi euh, xam naa texte bi ñu jeexale mooy texte bi nga xam ne ibnu Qayyim da ko tuxale ci ibnu Aqil ibnu Aqil nag dañ ci ñëwaat ndax ñu bare bari ni ñu foogee pas daal di mu noonu dañ si ñëwaat beral ko kiiwu boppam boobu boobu mu mbukk ci wax Ibnul Qayyim da koo tuxal kon yi teg si defe naa mooy yi ngoor si indiwoon lenn lu ciy tegtale la muy wax amut te bu ko tegtale woon tam <laughs> daanaka ñu xaw a mën a wax ne kon euh, waxaat na leen ginnaaw bi ndax ma daal di saalikiin yu ca bari moo leen moo leen mujj te euh, fenn foo xam ne Ibnul Qayyim nee na tasawuf baaxut moom doo ko génne mën ngaa génne nag ku ñuy askan ci tasawuf ku Ibnul Qayyim di ŋàññi wala ñoo xam ne dañoo tudd tasawuf mu naan léeg-léeg xëy na ay malaaxila la malaaxilatul mu tasawuf wala nangam benn kuréel ci ñuy tuddoo tasawuf wala mun tasiboona ila tasawuf noonu lay faral di waxee waaye jëmmi tasawuf moom kenn du génn fu ko ŋaañee bal sax da koy tagg jëmmi tasawuf <laughs> toro te indi nañ ci preuve kon ñu terminer fii ba beneen yoon bu soobee yàlla gaa nag toujours dañ dul jaawale dañuy dañuy faral di jaawale koo xam ne maanaa dafa am xeetu euh, gaay xeetu ay nit ñu ñuy askano tasawuf ñu ñu mu àndalut ak kuy ñi tasawuf dañ koy jaawale noonu lañu faral def ci Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi ku ko xam-xam ne nga ñëw tasawuf te mënees na ci texte yu bari ci ay mbindam waaye am na ñenn ñu askano ci tasawuf ñu mu doon weddi loolu moom am na sub kii tamit moo idul ni xam xay na yenn téeram yi boo ci demee da nga gis ba benn kuréelu tasawuf bu muy dal te moom ci waxam suufi la moom suuf kii euh, loolu nag dafa bari lool même sax fi ne suñ bi ni mag ñiire boo ci demee ko ci mel sëñ Tuubaa wala yooyu da gis xëy na léeg-léeg ñenn ci ay suuf yi yoo xam ne leen di wax naa day day génn seen i njuumte lu mel ni ko wasar wala sal yaqiin bil yaqiin nangam fi aaxiril boo demee ci yenn téere mi da nga gis léeg moo def yenn intiqaat te loolu bari na ci mais loolu tekkiwut ne waa ji koy wax du suuf yi dafa am xeetu ñuy askanoo tasawuf ñu muy raddu loolu dafa am moom Ibnul Jawzi yi muy texte Ibnul Jawzi yi muy indi yooyu du teegin koo contre na moom moom même moom koy jëlee sax tagg na fa tasawu wax ne euh, luy sellal bakkan luy nàngam euh, sukki moom suufi la ak ñeneen ak ñeneen ñu bëree bëri ñu ñuy doxal ci seen tasaw yenn texte yi dañuy indi waaye yee ngir bëgg a lëntal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu même Ibnu seen sëriñ noonu lañ koy def <laughs> bépp textam buñ la wax muy ŋàññi tasawuf wala muy ŋàññi aw nit man nañ laa indi ab teg sam buy ŋàññi aw nit loolu mën nañ ko indi mais fu mu ŋàññi jëmmi tasawuf mënuñu ko mënuñu la ko wan Ibnu Taymiya ci boppam koo xam daa da dem tasawuf baaxut kenn du la ko wan lañ la mën a wan mooy am ñu muy ŋàññi donte sax nag ñu muy ŋàññi ñun noonu anduñu sàng moom waaye sukkandiku ci nag ne moom maana day daa weddi jëmmi tasawuf moom ku ko wax rek waxoo dëgg kon ñu yemandi fii